tey leeral benn mbir bu gàtt rek mooy euh, waa Thiès dañoo am gan bu màgg muy le président de la république à l'occurrence Macky mu dig ñu ak ngan ci le 29 bi ñu dëgmal muy ginnaaw suba ñu koy xamal ni nag gis na nañ def na tuuru Sénégal gis na lim nit nit ñi génn accueillir ko waaye loolu mu gis li ko waa Thiès dencal moo ko ëpp fuuf ñu koy ñaan mu xam ni buy ñëw jërul sax muy ànd ak garde lépp lu ko tëwoon cees dina ko yomb jeunesse su Thiès taxaw nañ and doon Ben mu jeunesse mouvance présidentielle ak ñi nga sax c'est des acteurs non politiques and nañ doon Ben ngir accompagner le président euh, Macky Sall ci projet yi nga xamni tay ji jii commencé na doxal ngir Sénégal euh, nekk un pays émergent mais aussi and nañ ngir lalal ko tapis rouge accompagner ko te liñuy ragal sax moy est-ce que dina am accès wu ag ci fi nga xamni fa lañ wara défé tay inauguration parce que nak li ñu waaj Cees gépp dinañ génn ngir dalal ko dinañ ko dalal ci jàmm dina fi dugg ci jàmm génn fekk jàmm euh, euh, su poussière du jóg xeer du génn dara du génn dama jàpp ni ñuy wax dañoo comprendre enjeu bi fi mu toll yaakaar naa ni tey jii képp kuy euh, wuyoo président ci turu président Macky Sall wala président Idrissa Seck sa mission mooy d'abord na ngay gën a dëgërale li nga xam ni moom la président Idrissa Seck ak président Macky Sall déggoo yaakaar naa ni nag ndaw lenn moo ko war mooy dégg nangoo jëfe ndigal te ñun dañoo am kilifa te comme ni ko suñ kilifa di wax ko am kilifa doo gàggantikoo ci mbedd ñun li ñu tal mooy nan la ñuy décerner un accueil chaleureux au président Macky Sall fii à et je crois que loolu dañ ciy invité suñu frère yooyu nga xam ni dégg na leen ñuy wax xëy na am na lu leen naqari ils ont leur propre raison mais ñu xam ni moment bii nii moment wu ànd la boole suñu force ànd dalal ki nga xam ne mooy njiitu réew mi ndax ku ne amoon nga nag yéene président de la République ganasi la Thiès am privilège bobu tay président di damay ñew dalal wa dalal euh, ànd ak waa dem inaugurer université ISEP bi mu wara a nekk tey ji fête pour toute la population thiessoise donc ñun liñ leen di ñaan moy ñu revenir à la raison te ñew and ci lolu ñu accueillir le président de la république je crois que lolu mo ëpp solo leneen lu mu mënti doon parce que nak bu yalla défé tay ji président Idrissa Seck ak président Macky Sall ànd waa Thiès yëpp wane ci sen sen seen ànd ñoom waruñu dogu ci ay détails yu indi luy xëpp suuf ci cere lol du sen wal du sen du sen drôle non lo yow ya ko wax waye ñun xam nañ ni ñun mbrokum saw mi mo gën ci Sénégal te dañuy ñaan yalla mu saf sàpp suko ba ku na jot ci sa kop wala sa ko nga naan. alaykum ma ngi tuddu sada kingom ñu gën ma xam ci commissaire may responsable des jeunes de de de l'APR ñu dëkk fii ci waaw Cheikh euh, sama natango bi wax na lepp parce que suñu dajé bi tey ji li ko sabab mooy ndawu APR bi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii tey jii ku ñu nekkee di liggéeyal APR depuis 2012 ñu ñëw tey jii mburoog soow bi nekk fi tey dañoo jàpp ne il est temps war nañu mën a dajaloo dem ci ñoom pour war a ñu bokk nday ak baay parce que dañoo am ci loo xam ne dañ ko jub ñu am gan gu màgg gan goo xam ne tey jii vraiment war na fee ñëw ñu war a bokk ndey ak baay war a nekk benn war ko lalal tapis rouge vraiment séntu ko dalal ko ba nga xam ne def fi loo xam ne kenn mësu ko def loolu moom moo nekkoon suñu daje bi tey waaw depuis mille euh, depuis 2012 man bi ma nekkee ci APR ba léegi euh, man vraiment loolu dama koy gis te loolu bu ñu ko gisee enjeu boobu loolu nekkul ci ay euh, nekkul ci benn benn parti nekkul ci kenn koo xam ne tey jii ku dul APR ñun ñi fi taxaw kenn ku ci nekk ab ndaw nga boo xam ne tey jii ñii kenn ku ci nekk mouvement tey jii sa kilifa président mouvement la ñii seen kilifa ministre lañ ñii seen kilifa peese yàlla jàpp naa ni ñooñu ñooy ndaw yi nga xam ne tey jii lépp lu mën a am ci dëkk bi ñu ngi mobiliser di massifier di porte porte di def loo xam ne tey jii vraiment moom la président bëgg ci loolu la ñu nekk boobu ba léegi moo tax tey jii vraiment bu ñu wootee dama jàpp ne président de la république boo ko bëggee te yàlla tax nga koy liggéeyloo te gëm ko jàpp naa ni képp lu mu woote ci lu andi lu baax rek jàpp naa ne war nga cee dugal sa loxo loolu moom moo ñu fi andi woon